koor jàll na ñu wari tabaski ñëw na ñu tabaski tam xarit ci la nu ne màggal a ci màggal nag sëñ bi nee na dégg na ko taalib yépp ñu bàyyi ko xel tegu ko woon nag ci kon ñu ñëw Touba waaye li sëriñ Saliou waxoon ne màggal ci ko jëkk a woote mooy sëriñ Fallou mu mel ni tey ba ba màggal bi sosoot léegi dee su ko defee fenn pour ñu ci Touba barket barket sëriñ Fallou at yi ak jërëm ci xamoon ni sëñ Modou Moussa na fi waaye teewul ne doxal màggal bi mu jee ak jëriñ mi tam bi mu woote ko gis ngeen ni màggal di mel waaye sëriñ bi moo wax ni sama bis bii su dikkee nga wuutale ko bis ba bu démb ba bisu démb wuutale ko bisu suba bi kon dëkk bis bi ci dëkk digg bi moo la gënal bi moo la gënal bii ñëw suba nga xam ne sama bis ba nga bàyyi xel ba mel noonu sëriñ Touba nee soo soo defee noonu ba nopp waatal ne lu ma am ci yàlla man yow a koy bokk sëñ bi ko waxaloon boppam nee na sama bis bu mu dikkee nga warale ko bis ko warale ko bis buy ñëw suba ngeen jaral boobu am nangu ko am ci yàlla bu bare man yow a a koy bokk te yaakaar naa ne ku ne xam na ne ku ku mu ëppalee mu ko kon nag bis baa ngi noonu nañ ko bàyyi xel bu baax baax. kon na waajal bis bi waxoon naa ci biir waajtaayu màggal ni eh, sunu teg tollukaay bii te nekkam noonu ba léegi te jóge muy Serigne Saliou bi mu daan nekk ci daara bu weeru safar teroo soo ko jubee day wax ni su fekkee yitte moo la tax a jóg doo xam ni booy wax doo ci tudd màggal bi booy boo booy extrait bul wax mënatuma dégg lu dul màggal bi fépp ñu jàpp loolu kon tegtalukaay la ci dafa waxee ni màggal gi bu doon ñëw te fekkuma ci ab jekk kon danaa jaay ba ma muy kër gi ma dëkkee wala leneen dugal ko ci biir màggal gi waaye talaagee sëñ Tuubaa ji tax na daanu mën a doxal màggal gi te duñu yàgg foofu kon maanaam jàngale nañu màggal gi mooy bis boo xamante ni dafa dara dañuy mënu bu ñu wax nag ni diine lislaam nangam nangam waaye diine lislaam amul benn bis bu toll ni màggalu Tuubaa loolu nañ ko bàyyi xel la ma fi waxoon danaa ko waxaat mooy sëñ bi waxoon ni du ma ni moo gën moo gën korite du ma ni moo gën tëbaski du ma ni moo gën tam xarit du ma ni moo gën tudd yàlla du ma wax moo gën aj màkka waaye li wirti yéen di li wóor ci wóor mooy yéen murit bis bu mën a doon baax na waaye bis bi gën ci yéen mooy màggal kon nañ ko bàyyi xel daal ni lay firnde ja moo di doom du gane jamono te bàyyeegul weeru ndeyam soow moo ko mën a jox soo ndeyam a ko gën a te yéen may seen ndey kon sama bis bi moo gën ci seen bis bis bi maa la kon nan ko bàyyi bi moo waa kay tuwaat te waajal màggal li ñu tëjee suñu kàddu muy muy njaay xasida wax na ne jamono yi ci ginnaaw danoo dajaloo dem ci barabu Serigne Saliou dem ci barabu Serigne Saliou jàng wa jàng Jalikatul Maraaxib dafa am ci sunu biir daara ku ñuy wax Moustapha Kane doomu sëñ Maxaali Kane la sëñ Maxaali Kane ci mag ñi sëñ Tuubaa yaroon ci la bokk ci bu yàgg jiitu na sama juddu ak ko mel ni nee na barkeelu ci sëñ Maxaali Kane taxoon na kër gii ma sëñ Moodu Musaa jox ma nekkee ko fi woon ab néeg ba fi ne néeg boobee am na bant ko ca des boo xam ni ku dugg ci biir sëñ nga wan na ko ni la ci néeg bi sëñ bu doon barkeeloo ci sëñ ma xaalikan ca la ko. bisimilah. Moustapha Kane moom maa ngi doon bokk daal màggal gi. fii bari na dongay sëriñ bi yu fi ne waaye ku fekkee woon tamit njur ñu ne ma ne xam na ne taxawoon na maa moom guddi yi ak bëccëg yi. taqoo woon na maa ngi sobaatoon guddi yi ak bëccëg yi foo ko fekk luy maye ngërëmal yàlla def na ko danaa root danaa taxan danaan bale daan jàng xasaay daan jàng alquran ba waa daara ji jëpp góor yàlla lañ uti woon am ñu koy wooye mooy xam nga daara ak daara ngeen bokk daara nga dem muulu sa morom bu tudde ko bi dana maye ngërëmal sëñ Tuba bu subaa kan daana ko def dafa euh, euh, euh, daan soxla ma génn ñëw ci biir ëttu daara bi mu génn jaar yoonu bay laawa danga daara bu fa nekk xam na yoon li génne woon ci daara bi jëm bay laawa nuy dox ci guddi gi am na yoon bu koy garal jëm euh, euh, guy mbaam guy mbaam sunu mbokki mbàkke mbàkke fa nekkoon sëriñ yooyu fa lañ toog ak guddi mu ne may man de barki bi dafa am nga ma gaar loo xam ne yow rek laa koy wax te jàppale bu ma ko waxaat samay mag fi yoo xam ne man ñoom bokk seen waxaan waaye du ma wax kenn ma ne ko maa jàmm ma barki bi Serigne Touba dafa ànd ak seen waxaan moom wax ba kaan ak waa jàllikutul ma raqib dara lay lan war a xaar wax bu nekk bu ko yoroon buy liggéey ci kër ci buy bay ma lay tànn wax jàllikutul ma raqib ne barki biig Serigne Touba dafa ànd ak sëñ Maxam ñëw fekk ma ci sama biir ne du nelaw du dara wax ak man lo xam ni yëg naa ne man Touba tay damay dem yàgg na ba noppi ci ko xam ni fit na yaram boo nga xam ni doo ci yek ak lam lampañ ma ne ko lo tax mu ne man liñ ma wax a tax ma xam ni bëgg naa ba noppi damay def yow rek laa koy yàlla xam na daal nga lu tax ma ne ko déedéet mu ne ma ku koy jàng bu ëllëgee bu ñu taxawee maanaam ni ma gis nga pour bayee gerte maanaam gerte engrais bu rëy ak bu ndaw ak yu mel noonu ñu waaw mu ma waaye engrais bu rëy foo taxaw di ko séen ni ko waaw mu ndax fisaay ba ndax bari ba mu ne ma jànnibatul ma raqe ma saxoo ko xam bu damay gaaw a dem te bëgguma bis penc kenn may jàng euh, jànnibatul ma ma ne ko ma tàkk ay bu rëy loo xam ne gisoo euh, sunu mbokk yi ñeeñoo yi buñ demee fekk seen géer ñu koy waaye da ngay gis lu ci biir néeg mbubb jox ko mu sol wala ñu sumb seen mbubb jox ko ko boole ko lañ am ñu jox ko ko aw takk dafa rëy boo koy takk lu mu mën dana la ko def waaw mu ne mu yéene woon a takk sëriñ bi te manuma ko may jàng euh, de saawa sakoor ngir yéene ci tagg Sëriñ Tuubaa ma boole jàng ko jàng ngir ci suñu ma di ko jàng desaawu sakkoon bi dañ cee tagg ma ko moo sama borom dogal maanaam boo xoolee boo xoolee وقال يا حسن تجي جاني وجو مرحب سما جون خاب ميتي مجرى سن كده فواحني وبشرنا بالنسمة أفضل رسول وبشرنا بالنسمة أفضل رسول كون مو مجي تبي مو مجي تي ما نتري وايا سما مرام كمان بنتا كتو تجمعو أي بس أمو موات مجي غامني تلاي جكة دارك استاري وقتو نتباتي عن بنتو سيدلي dañ ne Moustapha Kane wàcc na liggéey añ booba benn ndongo du ko daan ndax yëpp ni bànqaas bu rëy bu mag wàcc duggee na ci ñun tey ko mën koo gis ma nga tëdd ci lanam ñii ngi jàng di génn dajaloo nga xam mu doon a wakkil doo ci xeetu yàlla ak yu ndax dañ koo yar ci loolu waaye gis na woon xam ni daara yëpp yëpp na su ko defee kon noonu rek la demee xasida noonu la mel ba am jamono man juróom-ñetti nit man juróom-ñetti nit kii amoon dañ ko war waaye juróom-ñetti nit ñoo xam ni njurul na sëñ beenu fi jëlee yóbbu nu Tuubaa beral booba benn xasida laa taxawoon muy ma fàttali gisee waxtu wu nekk day lan ko naxaroon naa koy man daara yëpp xamee woon na ma loolu ma fàtte ko wicc démb rek barki démb di dibeer dimanche Serigne Cheikh mi ngi génn toog ndax maam ndekete kuy def defal lu leer ndax yàlla dogal ne bi ma nekkee ci biir kësën bi lu ma daan dem këram néew na néew na moo dajale waa daara ji foofu ñu toog ma xëy eh, di di di di di di waxtaan waxtaan yi ka xam yooyu daal di ne mbay mii ngeen gis day ak si man bii weer boo mu ngi bokk benn setal nga xam ne ci raam lay toll mu ne sax laa bëggul sama xale bii maanaam sama xale bii borom sikkim bii magu ko daa tolloo daa gaaw a sax sikkim rek waaye dinaa leen ñetti li ak njaal beenu ngoneem ak yu mel noonu di ñetti li lu mel noonu daal di waaye ci yam yi ñetti li daal di ne moom day diiru daaraam yépp daa taxawoon ak xasida yi te foog xasida yi di ko jàng waxtu ne yàlla may amul ko xam na bokk na ci yam wax nga ci des nag lu may wax ci rajo ndax du du du ne dañ cee wax ak baax maanaam ak ngoone la li te loolu du ci rajo waaye nag te mën a wax rek mooy taxaw bi xasida yi te xuma woon ne xam na loolu ma fàttali bi sëriñ juróom ñett lañu sëriñ bi yabal ñu Tuubaa beneen benn bis rek di koy doon nga jàpp ma ma daal di bàyyi ba fàttu jot ma dem yeesalaatul njàpp daal ne man de tey jii damay def istixaar ci mafaatihul bisri maa ngi ci def istixaar ci mafaatihul bisri nekkati xasida bu ne am na borom ci laa xame loolu sama borom dogal bi ma bi ma ko jàngee ba tëdd nag di nelaw man man loolu gént la waaye man maa waxoon ni damay def istixaar ci mafaatihul bisri di ñaan ci barke mafaatihul bisri taalibe Sëñ Tuubaa yëpp seen àll fa barke Serigne Sall sama borom dogal bi ma tëddee rek maanaam ma gis muy taw maa ngi tëdd ci sama lal di nelaw ma gis muy taw ma am ku ma gis mu yor xaftaan bu weex di dugg ci taw bi di ñëw maa ngi wax ci gént ni man ne kii jëm ci fii xaw ma ci man la jëm wala jëm waaye moom lu ñu jaaree ci taw bi te tooyul nga xam ne gis naa ne mi ngi taw ci kawam waaye gis naa ni jeexitu tooy amul waaye maa ngi tëdd di nelaw mu ñëw toog ci lal bi ma tëdd. dande mani tey jii de damaa ñëw di wax ak yow dama lay xamal ni Serigne Touba nee na bi mu liggéeyee ma fàttiru misiri ci la aajuy taalibe yëpp góor waay góor góor waay góor góor yalla dogal bi ma waxee loola ne ma xam nga may kan mo ne ko déedéet man mo ne ma may maay maay Cheikh mohammed mustafa mom khadimul Mawla nga xam ne noonu la ma ko wax bi mu ci sama lal te boog maa ngi ci ñalo man wax lor ba noppi ne ma xam nga may kan mo ne ko déedéet mo ne ma may Cheikh Mouhamadul Moustapha Cheikh Mouhamadul Fadel moom xaadimal Moustapha ci nag bi mu amee ak diir nag ci laa yëg ni yow kon xisa bi ma njëkk a wax waxtu bii kooka moom dañ dafa jàkkaarloog ay nit man nag leeral rek laa doon def waaye def naa ko naa jàpp bala maa nelaw digganteeg sëriñ bi ci xasaay boobu mu ma fàttali gis ma gis loolu kon loolu moo waroon sëriñ bi wax ni xasidam yëpp wurusu ngalam la fas wu nekk wu ci ne aw fas la naaru góor la woo xam ne fa mu dëkk du la ñuy nattale ko awaat te wàccoo ko mu yóbbu la fam dëkk te fam dëkk mooy aljana kitaabat yi gatuuru taxtal arsi bay nan ki bay nan kiraami habidin fil farsi nga am dara jay xasida yam ko waxe la ngaa bu ci gane di ko jàng loo gàtt gàtt xalaat xam ni fam dëkk du fa dem te ñu mu góorgóorlu ci jàng xasaayid sëñ bi sëriñ Sane yow daal dégg mu ne lenn loolu bi ne xasaayid yi amul jawa basiran na kon loola yonent bi la waaye boo koy nett li sëñ bi jim koy dégg lu ko gën a dégg loolu amul te wa bashara na bi nas mi afdala rusuli ci la làq ngërëmal yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon yow mi koy nett li war ngaa xam ne làq ngërëmal sëñ bi loolu may wax ne kon nag ñu góorgóorlu ci doon lee laxasu dooni taalibe te bañ a doon benn taalibe benn taalibe sëñ Tuubaa nan fas ak sunu dal ñu di ko liggéeyee Serigne Touba suñu lépp nañ ko jaayante jox ko Serigne Touba نور نياتي وعلمي وخدمتي وروحي وجسماني وكل بلا سبب لا waxoon diggante ma ak yonante bi te desewul woon dara diggante ma ak yonante bi moo tax ni ko yonante bi def ci ci ndigal su borom ñëpp gis nañ ko ku def noonu sëñ bi it mu yëkkati la ñëpp gis na ñaari mooy jël na leen comme jox ko bi kenn nattam leen waxam jëfam yëngoom ak daloom lépp jox na ko sëriñ bi di ba ñu nekk fii boo seetee ci boobu àtte rek daa tolloog wala fi dañuy wax ni ku war mbub rek tudd dëkk kon gannaaw bis bi bisu taalibe yépp la te kenn werante ko waaye ci moom la ko sëñ bi jaarale moo tax ñu dafa wax waaye li nga xam ci moom it xam nañ ko ci taalibe yépp loolu rek mooy wax bi waaye dëgg dëgg gis na ku mel ni mbuur gi rek laa ci biir mbuur kenn gis a fee gis bu nuru lii benn rek la fi ku dëkk Touba boo dikkee benn rek la fi ku dëkk Ndakaaru boo dikkee benn rek na fi kon bis yi ñu ngi leen di woote ngeen sëriñ bi kenn ngeen tudde bis bu la bisu sëriñ bi waaye bis bi dëgg dëgg bisu sëriñ Tuubaa mooy